ñëw fii ci kër njabootu sunu maam ji tedd ji di soxna Fatima al Kubra di taaw sëriñ bi radiyallahu kàddoom du weesu sant ak ñaan sant goo xam ne mu ngi tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ci yitteem ju kawe ak yitte ju mu am ci daayira bi wóolu leen lool di ñaan suñu borom sàmm ko ba yaakaar ji mu am ci daayira bi yàlla dëggal ko te meññet lim leen di liggéeyloo mu fekke ko mi ngi sant bu baax nag njabootug soxna Fatou Dia ci ni leen jataay bi yitteele keroog ba mu ñu fa yabalee pas-pas bañ àndaloon tey jii gën na koo firndeel jublu woote bi nag doonu da weesuwut lii ñu fi dégg dégg tey nga xam ne ku fi teew muy góor muy jigéen xam nga ne am nañ ay roy waay yu doy sëkk képp kuy jigéen dégg lii ñu waxtaane la soxna Faati Dia danga xam ne soo bëggee dem am nga ko roy yeesut kenn ci genn wet ci xam-xam ci am diine ci teggin ci pas-pas bu dëgër bu yaatu bu xóot loolu di jàngale ne kon kenn ku nekk loola am nga ci cër ci jamono joo xam ne nag jigéen ñi dañoo jàppoo ne loolu du seen wàll maanaam bokk na ci li gën a mat bàyyi xel bi Sëriñ Tuubaa da ñëw daa fekk ñu jàpp ne jigéen ab yaram amul solo yàgg nañoo dégg njàngum jigéen amul solo yàgg nañ koy dégg am na benn waykut arab boo waxoon ne jigéen moom jërul jàngal alxuraan na jàng rek lixlaas ak fàllax ak naas ju mën a julee doyen Sëriñ Tuubaa moom ñëw jël ay doomam yu góor ay jigéen yóbbu leen daara jàngal leen bañ mokkal alxuraan jàng leen xam-xam bañ nu lef teg leen nag ñu yare soxna Fatima bokk ñi ci jiitu ci ñooña ndax taw feex ji mu am njëkk a feeñ ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi loolu tax kon bi ñu amee gis-gis ne wooteeb sëriñ bi kat góor ñi ak jigéen ñi kon war nañ cee boole jigéen ñi te tàmbalikaay bi nag mënta doon ku dul soxna Fatima moo tax sëriñ bi ne kon nañ ñëw fii ci njaboot gi jataay bi njëkk amal ci jigéen ñi tàmbalee ko ci moom moo tax mu ngi sant baax njaboot gi di ko teg ci loxol sëriñ alxaaji muy teew teewal fi sëriñ taala ak njabootu soxna Faati gépp sëriñ Abo wax ko lool léegi mi ngi leen di sant di sant bu baax nag sëriñ Abo mii ci yitte ji ko jox euh, sëriñ Mor Boussa mi doon jokkoo ak moom wane na yëg ne ñor ko lu ko mbir mi ñor ak yitte ji ko jox ci wàll yëpp loolu ñu koy rafet bu baax a baax sëriñ bi mu ngi koy rafetlu waaye di sant it di leen seereel ne sëriñ Mountakha Pakala di kenn ci jaboot gi ñu ngi koy ndokkeel ndax moom fii la bokk waaye nag membre bu dëgër la ci Rawdu Rayaahiin bépp liggéey bu ñu fay liggéey kenn du ko ci man bépp jataay bu ñuy woote kenn du ko fa jiitu ñaare kon loolu it ñi leen koy seeral xam ne maa ngi fa nekkal leen fi di sant bu baax it euh, soxna yi nga xam ne ñoo fi ñëwoon daf fi liggéey ba mu solo bi sëriñ Saliou ñu wax na ko léegi ay tànneef lañ lii sëriñ Abo wax wax ne ñoom kenn génn ci soxna Fatou Dia it lu am solo la kon mel na ne tànn gi dajee nag tawféex euh, kàddu yi am na solo tàmbalee ci soxna Fatou Gueye soxna maam Awa Boussa ak soxna maam Awa Dem wane nañ ne ay jàngalekat lañ ay yarekat lañ waaye ay sëti soxna Fatou Dia lañ loolu du am solo la yàlla yàlla gën koo barkeel gën koo yokk sëriñ bii di sant bu baax membres yi daayira Rayahin bépp nag wax di yàlla ñun ñëpp seen yitte mooy daayira bi jëm kanam te daayira bi xañ ko xame liggéey bi muy liggéey liggéeyu xam-xam la liggéeyu xam-xam yombut gaawut liggéey bu bu diire la boo xam ne lim laaj borom pas-pas rek moo ko mën def waaye seetlu ne mbooleem ñi ne ci ginnaawam wax dëgg yàlla jox nañ ko yitte jox nañ ko moo tax faaw bu occasion yu mel ni amee dana leen sant ñaanal leen suñu moom gën leen sàmm gën leen dëgëral di rafet lu baax jataay bi am na solo lool wax dëgg yàlla liñ jublu woon ba tax ñu tànn ren ne bu ñuy waajal màggal gi nañ ko waajale ñetti waxtaan benn bi ñu defee ko njabootu sëñ moo Soxna Boussa bi ci des ñu defee ko njabootu sëñ Muxtaar Binta Lo bii ñu defee ko fii ci njabootuk Soxna Faati Ja gis nañ ne ñu fi teew tey jël nañ fi ay bind jàngee nañ fi loo xam ne bu dutoon dara lu dul loolu dong mu doyoon ndax suñ mag ñu baax ñi xam leen xam liñ nekkoon ci lañ mën a sukkandiku nga defal suñu ëllëg waaye jàngal su njaboot gii ci kanam xam ni ñoom am nañ ndono luñ leen di sàmmloo loo xam ne lii soxna Faati meloon yor ko ci melokaan euh, ràññ ko ci lii sëriñ Saliou di wax mas naa dégg sa jabo wax ko ne amoon na sëtam bu ko daan waaye maam Allah loolu lu doy war la am na lu muy tekki loo xam ne képp ku ñuy tudd tudd soxna si di tudd sëriñ bi di tudd murit gi war ngaa xam ne yow sa yitte foofu war a nekk rawatina boo dee jigéen ndax ñu bari dañ jàpp ne yooyu seen mbir soxna Faati wane na ne ci jaamu yàlla ak ki mbaaxa a xam-xam jigéen waru ci kenn jigéen waru ci yées kenn ndax loolu mbiri suñu boroma te daa waxoon ne wa man yaamal min as-salihati wa man yaamal euh, min as-salihati min min dakarin awun see min dakarin awun see la waxoon kon foofu yàlla bàyyiwut xel góor wala jigéen ñëpp la la bëgg ñu topp yàlla te ku ko topp te rafetal ko am ngërëm boo lëggee nga am ci cër yi gën a kawe soxna Faati nag bokk na ci ñooñu kon royukaayu njaboot gi la loolu rek la sëriñ bëggoon wane ba tax ñu amal jataay bi kon ñi ngi sant bu baax ndax luñ ci yaakaaroon rek gis nañ ci lu ko raw teewaay bu am solo bi bu dul dara it mbokk yi ñëw teew ñii ñu lim nga xam ne ñooy njabootu soxna Faati Ja kenn wute wuutewut loolu rek jaroon na jataay bi ndax li ne ci jokk mbokk ak rafetal ci jamono ji nga xam ne nag ñi ngi waajal cant gi nga xam ne moom la sëriñ mag bi woote te sëriñ boo wax na ko léegi cant du bernde rek dëgg la bernde ci biir ku kenn du ko génn ci cant ndax lépp lu ja jaam bi def di ko jaamoo yàlla ngir sant ko yàlla ci xéwalam yi day ko ci biir cant gi ndax mooy sarfu al abdi an ni'mata fi ma xuliqat la te loolu génnul jotaay bi kon sëñ baa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp tawféex di leen ñaanal tey si di ñaanu suñu borom jotaay yi bari ñu di ko teewee te. dama ko fàtte waaye fàtte ko jot Muxtaar mbaar mi da cee def jàppandal lool ba ci biir këru bayti yi fi lañu waajal bernde yi mhm. lépp mu jàppandal barkaala kon sëriñ baa ngi sant ñëpp di ñaan yàlla lépp luñ fi yëkkati yàlla nañ ci yàlla jëriñ waaye ñu am ci ngërëmul sëriñ Touba ak soxna Fatou bi mi taxoon ñu daje fi ak ñu baax ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi woot ay tay ngi ñoom sëñ Abo di wax ne sëñ Ahmadou Mokhtar mii kilifa ak penc mii mi ngi koy sant bu baax njaboot gaa sant ndax yitte jëm jox bis bi ba mbaar mi mu def ci ak jàppandal lool ubbi it kër sëñ Tuubaa gi di bayti jox leen ko ngir ñu dalal fi gan ñi lépp luñ ñu fay def ñu defe ko fa loolu ñu ngi koy njaboot ñu koy seere da yëpp day wane rek ne lépp sëriñ Tuubaa la kon nag loolu tawféex la ci barab bi nga xam ne nag ku tudd muridiya da nga ko tudd yu baree bari fii la xewe woon fu jege loolu fii fii la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeña woon sëriñ bi ci ni ko sëñ Basiru nettalee li dox seen diggante lu tuuti lu yaraax ñu bari ci kilifa yi feeña fi kon fi lañ amale jataay bi sëñ bi sant la dafa ñaan yàlla sàmm leen te guddal seen fan wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko lool yitte ji ñu ko jox kawe na mi ñaan suñu borom dafa leen ci tawfeex waaye sàmm leen yéen itam bàyyi leen fi ba ngeen gën a mën a sàmm ndonol soxna Faty jël yi nga xam ne buñ ko sàmmee adduna jat waaye di bàyyiloo xel suñu mbokk jigéen ñi ne royukaay baa ngi nii kenn ku ne ci ñu war na jéem a am dunduk soxna Faty fexe ba jàllalee ko ci njaboot gi boo ëllëgee ñëpp nekk ay soxna Fatidia boo ëllëgee ñu ñëpp ñu nekk mbégum Sëriñ Tuubaa ñu ngi jéggul di bàlla ak ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu